asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki taalibe yi mbokki dëkkandoor mbokki jullit yi mbokki am di jàmm yi ak soppe yi mbokki bopp yi ñu ngi leen di wax dal leen ak jàmm <coughs> ñu ngi leen di wax ne bisimilah ci jotaay bi di leen wax ne wàcc ngeen ci seeni kër wàcc ngeen seen barab ñoo ngeen ci seen dëkkuwaay ñu sori ñu ngi leen di wax ne ñoo ngeen fekk ci di sant yàlla bu baax ci jotaay bi di jiital ci cant gi nag daayira ahlu bayt ñun ñi nga xam ne ñoo takkatoo jàpp bésat tey di 24 décembre fas yéene di ko dundal ci at mu nekk tuddee ko ziar ñu ngi leen di gërëm ngir ne loo xam ne am na fum mu tàmbali waaye fu mu ndax li tax mooy li ñuy bàyyi jàngal ne jaami yàlla yi suñu dugg woon na yàlla na xaalidiina fiihaa abadan lu tax lu mu def ci lu baax dëppoowut ak wala tolloowut ak xéwali aljana lu tax mooy dañoo amoon yéene jaamu yàlla fekk ñu ngi dund waaye bu demee ci xéwal ak aljana amul fu yem kon xéwal ak aljana tolloowut ak jëfi doomu aadama ci àddina waaye la tax loolu mën a am mooy yéene yal nañu yàlla fay ci yéene maa ngi gërëm itam ci biir ahlul bayt jigéen ñi nga xam ne ñoo def mbetteel gi nga xam ne ñoo ko nas ci seen biir mu jóob nday mu jóob jiite ko am na ngant ñëwut waaye mu wutal ci ay ay rakkam ñu ñëw indi ko muy manto bi nga xam ne jox nañ ma ko teralee ma ko ci ànd bu yàgg man ñoom nday wax na ko léegi ànd bi mën na ñaar fukki at ëpp na ko ay seen seen ndey sax ñoo ci jiitu woon kinne caam ñu wax gën koo xam ci kinne bind mooy njëkk nekk président ànd ko ñoom ay sotumbe ñoom amisa ku lim da ngay jum waaye mag ñoo ci jiitu woon dama fàtte loolu mukk ñu tuddee ko soppay baay bi ñu wax ma ko dama ne leen dem leen tàggu sëriñ bi bu ci joxe ndigal rek ñu def ko su ko teree ñu bàyyi ko bañ demee wax ko ko ma ne leen jox naa joxe naa leen ci digal def leen ko maa ngi ànd ak yéen ma ne leen nag nangu ñu tuddee ko daayira seet leen beneen tur ndax sëriñ bi am daayira ñun lañ ñu tuddee ko soppay bàyyi defaloon ko ay carte gannaaw gi نعم دغل شي داف كو دايره تودي كو نصر الله لي بي جوجو في القران الكريم غناو ييب بيم غايو ما صوبي كو تودي كو اهل البيت تولي ما كو جوجو في القران باتاي يجب انكم رجز اهل البيت ويطهركم تطهيرا نخ بوراي يونس بن صلى الله عليه وسلم wala njaboot ak yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla dafa leen a laabal <clears throat> ba nga xam ne dara du ne ci ñoom loo xam ne tilim tilim la walla sobe la loolu moo tax ma tuddee daayira bi ahlul bayt ndax yàlla laabal ñu ñun ñëpp ñu sell ba mën a dem ci yàlla ndax bàyyi dafa ñuy jàngal ne pays yàlla bi ko amu teggin du fa dugg ak loo bari bari xam-xam ak lu saw jàng rëy rëy ak lu sa jaamu yàlla rëy rëy ak sa xeeti mbaax lu bari bari soo amul teggiin doo dugg ci péebi yàlla bi teggiin mooy caabi ji mooy bunt bi soo ko amul sax doo gis doo gis bunt bi ba mën caa dugg mu wax ne fal adaba al adaba yaa sa saalik fa innahu al baabu li saalikin na nga taqoo ak teggiin yow taaliba bi yow mi jublu ci yàlla ne dangaa bëgg a dugg ci pay yàlla bi na nga taqoo ak tegiin ndax mooy bunt bi mooy caabi ji te ku bëgg a dugg ci pay bi yàlla bi te amoo ko da ngay sonn rek waaye doo dugg sa dund bi dafay jeex rek ci jaamu yàlla gu yaatu gu bari te du tax nga am ci yàlla la nga war a am jàng nañ ci laxdari yi mu ne li salaati nuurun azimun tasruqu fi qulubi almusallina wala yanaaluha ila alqaashi'un wax ji benn la rek alquran wax ne wa innaha la kabiratun ila alal xaashiin fokk nga toroxlul yàlla ku am teggi da ngay ànd ak toroxlu sa borom soo ko defee rek da nga am ci yàlla cër leer ak julli dana wàcc ci yow soo xooree leer ak weer dana leer ak xoor dana wàcc ci yow boo saraxee leer ak sarax dana wàcc ci yow soo jokkee bokk leer ak jokk ak bokk dana wàcc ci yow soo naafila leer ak naafila dana wàcc ci yow waaye yooyu yëpp boo koy def te amoo teggiin amuloo yar doo mën a am leer ak diine lislaam doo mën a am leer ak naafila sax doo mën a am sax leer ak wirda su fekkee taalibe nga boo xam ne dangaa nekk di tiyaan moo tax ñi nga xam ne dañuy gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi kenn du àgg ci darajaay mën koo gis lu dul tomb yi may wax dafa ne ci yow bi ci jiitu mooy dangay ngay ci ci sobee laab ci bakkaat lo mana mana jamu yalla lo mana mana joxe xam-xam sa xam-xam nu bakar tollu te bolé ko bakkaar do gis yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ndax su boba sa tilim tilim moy tax dula jégué tam bam ñaaral bi moy da ngay laa su fekke da nga mana jamu yalla ba am ci yalla daraja te sa xol bi nga man ci gañ ku nek soo wax ak nit ñaari baat mer rek dugg sa néeg jàpp téye sa kurus diw yàlla na ala ko loo man ci secret yu la yàlla jox nga tëral say kayit di bind ka tomb kooku dugg si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi yàlla daf ko ni pour mu yërëm jaam yi wa innama ana rahmatul muhda loolu la wax man may kii leen yàlla jox may yërmande ñaar leen gannaaw dafa ñëw pour yeen bané nak képp ko xamné xiss dafa ne ci sa lox sa xol yonent bi dula bolé ci mbolo te ba légui kër nga yegg né du tok mi ngi ci déplacement yu yatu ci ci suuf ak ci kaw waye buy dem jami yalla ya seetloon te ko gis ci bay ñu dund ña nga ak mom mooy gangor gu reuy motax bayina iza na khairul khalqi sirtu waraahu wa in halla yawman fal masiru baidu dafa am piram zahir am piram batin piram zahir bi mooy fu yonent bi teg tànkam ci sunna ma teg fa sama tànk lu mu def ci lu baax ma def ko lu mu moytu ma moytu ko boo àggee ma àgg piram batin bi mooy gàngooram googu muy àndal du saxaaba yi rekk de maa nga ci biir fu mu na bërit maa nga ca gannaawam fu mu génn ma mbargeen ànd ak moom tombab ñetteel bi mooy dangay am yéenaay yaatal lu agsi ci yow nga jàllale ci xam-xam ci njëriñ ci dimbale jaamu yàlla ci téye sa làmmiñ nag ndax bari na loo xam ne mooy tënk nit ñi ba duñ àgg ci maqaam yi ñu war a àgg mooy boyal sa làmmiñ lu la neex nga wax jaami yàlla yi te saalixiina yi dañuy wax ne luhumul awliyaa masmuumatun jaami yàlla yi nga xam ne dañoo jaamu yàlla ba am ci yàlla cër seeni seeni deret te mooy seeni der dañ ko tookee dañ cay def dangat dañ cay def poson sooy wax ci ñoom lu bon rek sama borom daf lay xalak te dara du tax mu wàññi leen la nga leen di wax ci lu bon du agsi ci ñoom ndax yàlla daf leen a dafal kiiraay yooyu koo xam ne nekkul ci rek doo am ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam cër man ngaa doog a liyu de man ngaa am dara yu yëkkatiku ci yàlla waaye nag doo sori ba àgg ci yonent bi sallallahu alayhi muy palte goo xam ne goo am solo la yàlla nañu ko yàlla jox <coughs> ziyaara nag saxaaba yi dañ ko daan daf yonent bi sallallahu alayhi ndax daf leen a fu sori yóbbu leen fu kawe damay wax toujours ne saxaaba yu mag yi ngay dégg dalee ci Abu Bakar ba ci Omar ba ci Ousmane ba ci Zubairu Saad Saïd di ko di ko bàyyi tegalee noonu Abdurahman ibn Awf Abu Ubayda ibn Jarrah wa Hamzata wala Abbas wa Jaafar wa Aqil wa Xuseyn ñooñu ñëpp dañ daan jëfandikoo sàngara ndax boobu waxaayegutoon Aliyu rek mooy koo xam ne naanul sàngara ñu tuddee ko karamallahu wajhahu ndax zunnuuray ni masta def loo xam ne masta jaamu xërëm masta naan sàngara waaye ku ko may ci saxaaba yi yëpp dañ daan jëfandikoo sàngara dañ daan njaaloo dañ daan def lépp loo xam ne ayib la waaye boobu lislaam ñëwagul ba ñu xam ne lii baax na wala lii bon na loolu moo tax yi nga xam ne dafa baax jaayma yi nga xam ne dañoo jege yàlla ñoo am ko képp koo xam ne da ngaa ñëw gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ne da ñëw gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ci daraja jooju nga xam ne saxaaba yi dañ caa nekkoon kooku dafay am daraja yi nga xam ne moom la saxaaba yi am ridwanullahi alayhim ajmain waaye yonent bi yàlla daf ko yónni pour bu defar dem naag ñoom fukki at rek la dem ak ñoom lépp loo xam ne dañ ko daan def ci lu bon ci mooy yàlla ci jëfandikoo sàngara ñu bàyyi ko ba mel ni musuñ koo def dem nañ ba àgg ci daraja joo xam ne wilaayatu ya gën a kawe dem nañ ba àgg ci Omar ibn Xataab radiyallaahu anhu dem na ba àgg ci lu mu wax rek alquran bu ñëwee dafay ànd ak moom ñu tuddee ko muwaafaqatu Omar biñ jëlee waa Màkka di di bokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xasuutul Uhud indi leen yeew leen ci bayaalu Medina bi saxaaba yi yonent bi woo leen di diis ak ñoom ndax dañ leen di rey dañ leen di jël ay jar-jar wala dañ leen di laaj alal bàyyi leen ñu dem Omar daf ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ñooy ndeyi kéefër soo defee ñoom maslaa bu ñu delloo itam danañu songaat. pexe mi mooy ñu rey leen ñoom ñëpp rek ñu noppalu ci ñoom waaye duñu leen bàyyi di jël ci ñoom alal ñuy delluwaat dellu ci lañ nekkoon yonent bi déglu saxaaba yi ci des ndax boobu bëggul leen a rey bëgg na maslaa dox seen diggante ndax ay bokki démb lañ waaye ba alquran wàcce daf ne Omar dafa ànd ak Omar ci li mu waxoon ne dañ leen a war a rey kon nga gis ne nit ku kuy def lu bon boo àndee ku la mën a giidee teg la ci saraatul mustaqim danga dem ba àgg ci dara joo xam ne dafay mel ni da juddu rek laab soo def lu bon te yonent bi ku ñu ko wuutu ci ñun mooy El Hadj Ibrahima Niass radiyallaahu anhu defar na ñëpp lim defar ci aw nit kenn mën da wax lu mu toll. moo tax sëriñ dëgg mooy koo xam ne ku tilim bu àggsee ci yow nga setal ko kuy mooy yàlla bu àggsee nga fexe ba mu bàyyi mooy yàlla. loolu nag nit fekk àggagu ci ak tëriñam des na booy jaamu yàlla itam fekk àggu ci waxtu bi nga war a jaamu yàlla bu jotee doo am jàmm mukk te defoo ko soo ci àggee rek xamal ne dog nga buntab xadara bi waaye su fekkee boo jaamu yàlla waxtu bi mën naa weesu te doo ko yëg soo koy dafit du neex ci sa xol ba doo bëgg a moom ne la wét ne dese nga lu bari ci loo war a dox muy jéego yu war a jëm sa diggante ak sa borom sëriñ nag bàyyi daf ñu ko jàngal ba pare kenn mënuñoo nax ci sëriñ li xew ci jamono nag mooy dañoo foog ne da ngay ñàkk xam dara waaye da ngay sol yére yu diis amee kurus gu rëy am noo mel di génn ci réseaux sociaux yi am li ñuy wax buzz waaye loolu sore na ak yare jëm ci yàlla yare jëm ci yàlla laajut wax ju bari laajut wonewu laajut yar sa bakkan ci li nga bëgg lim laaj mooy liggéey ngir yàlla soo liggéey ngir yàlla sa liggéey boobu moo lay yëkkati ci kaw sama borom moo lay yëkkati te bu la yëkkatee kenn duutu la mën a féetale suuf boobu rek am solo waaye ci des yëpp yëfi la te amut solo dafay féq di suux waaye boo amee ngërëmal yàlla moom dafay feq tudd suufe mukk waxtu wu ne dafay gën a kawe liggéey ngir yàlla rek am solo te mooy suñ mbooloo mi ànd nañ bii góor gi di dund yi dama leen a waxoon benn baat ne leen nit de bu ànd ak nit xelam léeg-léeg mën na dafa rëng-rëng ndax li ma nekk nii noonu la ndax man ci yoon laa nekk wala nekkuma ci yoon yàgg naa leen wax ne leen dama bëgg ngeen gëm ne juumu leen yenañ ci hidayatu yenañ ci yoonu njub yéen nga and ak koo xam ne boo du dess gannaaw mukk yag na len ko wax te lolu mom la taarix andi lolu rek la taarix andi andi lu ëpp lolu wax na len fi daaw na len bi may sëriñ bi di di bobu ma nga ca ci 2004 ci la may njëkk a déy ji sama nopp wax ak man waxi góor ya ne góor góorgóorlul ndax dafa daan wax toujours ne sama bàyyi lam ma wax ci hôpitalu la daan teg du ma wax lépp ndax ku ñuy déy du wax ci mbooloo waaye man itam du ma wax lépp ku ma gis ngay telli telli damay toog di la di la seetaan rek nga xam naa ne jëmaloo fenn yàlla xam na loolu dafay baax léegi-léegi rek ma am tomb yu ma rotal ñu xamee ci lu bëri waaye la nga xam ne mooy wax ji dëgg-dëgg kooku duma ko laal ak làmmiñ ba may toqalal ay yëf ci sama nopp boobu mag sama mag la oo muy mag yàlla na ko yàlla yërëm ñëw mu wax la muy wax ba pare fekk bi may bi may wax oowal ko bi ma koy oowat dafa am lu ma wax ba pare na ma oo ko nag mu ñëw fekk mu ngi ci buntu hôpital bi ma oo ko ma ne ko kaayu sëriñ bi mu ñëw mi ngi tëdd mu wax ay kaddu ci kanamam mu dégg ko soxna Fatou Roq mi ku baax la am na lu ci xew loo xam ne fekkee na ko ku dëggu la ku jaraandat la ndey yu baax la daana dox suñu diggante ci yu baax rekk nag moo tax ñu téye ko duñ ko fàtte mukk ku gore la ku jàmbure la sëñ bi daf ma woo mu ñëw mu ne ma man óolootuma sama bopp balaa maa toog bay ñàkk man a wax ma xaaral ma wax li ma bëgg a wax ma ne bisimilah mu ne ma suba booy ñëw fekk dama daan def bés bu ne su ma xëyee danaa dem la daan danaa dem jaaraama yendu fa ba ngoon ma ñibsi mu ne ma yow dellu loolu fi fanaan su ma ñëwee na fi bay dem ma oome benn bés ma ñëw mu ne ma soxna Fatou ngi toog mu ne ma booy ñëw suba indil Walkman loo mën a enregistré samay wax boobu Walkman moo xew ma àbb ko yóbbaale ku jënd cassette bu bees ba ma mu ne ma dama bëgg wax li ma bëgg lima wax bala ma tëlee wax ma wax ma ubbi kaset bi mu wax li mu bëgg wax yëpp ba pare dama ya, gis nga li ma wax nii yëpp ma mu ne ma boo demee bind ko arab andil ma ko ma signé ko bu suba ma dellu si ba ñëpp tëdd mu ubbi ko tëdd toog sama nek di ko déglu di bind di bind ba yëpp jeex kër bu ma koy bind bàyyi tamit ngi tëdd fii ci néeg bi mu gisee lampe bi leer ba ay minuit une heure mu génn ne ma lan la ma ne ko dara damay jàng rek ndax boobu dama bàyyi néeg yi toog ci perong bi ma bind ko ba bu ma xëyee ma demaat jàngal ko li ma bind yépp mu ne ma baax na na ma jege ma signé ko ma jël big bi jox ko ndeysaan mu téye ko mënta signé loxo baa ngi yëngatu ba léegi këyit yooyu signature bi noonu la mel dafa yëngatu ba mënta signé maa ko gardé ba léegi. soxna Faati moo ko doon dimbale sax pour mu bind ko waaye mujj gi mu daal di sànni big bi. ma jël kayit yi denc kayit yooyu ak kaset bi ba léegi maa ngi ko amee. mu ngi denc lu bari waaye duñ waxkat yàlla binduñu ci wax ndax wax jëfa ko ëpp solo te yàlla du fay ay wax bàyyi ay jëf ba ñibsee ma demaat bi ma binduloo loolu ba pare ma ñibsi ca suba ga rek sama borom woon ma jumaa ji ñu daloo ko mu ngi toog li may wax ni mosuma ko nangoo wax waaye dama bëgg nit ñi xam te dal te am kóolute te gëm lañ nekk xam ne ñaari yoon amul benn yoon rek am gox bu nekk dafa am ko fa yàlla di jiital ndax ñaari sous mën nañoo am ci gox bi ñaari gouverneur mën naa am ndax ñaari président mën naa am baatin noonu la mel gox bu ne dafa am ko fa yàlla di teg doo am ñaar nag yaa gën a wax na a def nangam ak nangam ak nangam ku nekk ci yéen dégg na ko te loolu mooy dëgg Mamadou Thiam mii doon wax léegi dafa dese wax wax ji mu leer wax na sax waaye boobu xolam dafa sedd sew moo tax mën da wax waaye waaye ba mu koy oo di ko seddeeloo boobu dafa tane ba pare bàyyeeku ci feebar bi ba yàlla defee ma bind loolu ba pare gis ne dañoo daloo jumaa ji ñu wan ma ko mu leer boobu dañu ma doon tontu rek pour wan ma ne nekku mu dal demam jotagut ba ma xëy ma dem na ko man de am na loo ma yàlla woon mu ne ma lan la te daf ma daan déglu jeux yi mu ne ko damaa gis jumaa ji ñu daloo ko yaa ngi toog diw gis naa ko ca diw gis naa ko ci diw gis naa ko ca mu ne alhamdulilahi rabbil alamin te yàlla xam naa ne noonu la demee keroog bañ koy sanc jaami yàlla yooyu gis naa leen ñu ngi teew ba mu tanee papa Moustapha Niass oote téléphone benn bés jot ma dama damaa dégg ne sa papa dafa feebar ma ne ko waaw mu ne ma dama ko bëgg a yóbbu Dakar pour ñu faj ko ma ne ko xaaral ma wax ko ko ma wax ko ko mu ne Moustapha moo la ma ne waaw mu ne ma ko baax la de ci bokk Moustapha ne ma ne ko dama ko bëgg a yónnee sama Mercedes moo gën a neex a yéeg doom secours secours bi du ko sonal boobu yoonu kër ma jibeel waa ngi bon mo wax ko mu ne mo ba tay baxna waye Ibrahima Badiane ku bax la te waxna mané ma daf ma bëgg yónnee wotoom te bëgguma koo gantal ne ko mu baye Ibrahima indi jël sima mom mu am hébergement bi hmm. loolu lañ ko séddoowee ñom ñaar ba mi dem mu man fu yoni ma o ma ma dem ne ma bindal nangam ak nangam ma bind ko jox ko benn bi mu tiyé bi benn bi ma mu ne ma tiyel benn bi mu tiyé benn bi mu jox mu benn bi ne ma man dama ko yobale mané baxna ba mi dem fekk ci guddi gi am na itu ma yàlla wane la ma woon mooy tukki mi du antu dana départ ñëw fekk Moustapha daf na ko su ma la yóbbu clinique bi gën a mag ci Dakar ñoom danañ la bindal këyit bu la yóbbu amee rek nga tànn kenn ci sa soxna ak kenn talib bu lay dimbale ñu wax ci loolu ba pare takk bagage yi ma ne ko ah man de am na lu ma soxna Faté ngi toog man na maa ci loolu mané ne lan la mané ko gisuma dem deman dem Dakar de gis naa ko waaye dem amerique de gisuma ko man mané ne ah ma ne waaw ah dama wax ni dana def nangam ak nangam te docteur yi buñ ma xolé ba pare kayit yi ñi bind ci lay visa mané waw baxna na bañ démé ñu def liñ wara war a def yëpp docteur yi bind liñ wara a bind yépp <clears throat> tamponné ko ñu jël kayit jël passeport yi ambassade Amérique ñu amé ko fa fan ñaari fan delloo ko leen visa joxe ngant muy lu yéme ndax képp ko xamna da nga feebar ba tollu buñ la bindalé kay dañ lay may visa amul visa mu delloo ko Moustapha delloo ko bi ñu retiri bi mu jox ko xaliss bi yépp na ñaanal ma bañ takkee seen bagage bi wara ñew soxna ci moma netti mu né bañ wara départ mu ne ko Fatick mu ne mu ne ko fàtte yow la ñuy bàyyi waxoon de mu ne déedéet waxoon nañu de moom gisut dem mooy suñ ñàkk dem gi rek ci li may wax nii benn tomb la ci junney tomb yàlla xam na nit ñi dañoo xamut te dañoo teeyut waaye yëf yi yoo xam ne yu yàgg la nit dafay juddu yàlla sedd ko la mu koy sedd ku daggee ci làng gi fekk lay xew xew na buy yàgg ndax loolu mën nga ko soppi Baye Mbaye dafa wax ne qad rakiba alqawmu ala aljihaadi wa adlaju wa guddi lañ jóg jaamu yàlla ba am ci yàlla yow ngay nelaw di walbatiku guddee ndeyjoor ak càmmooy ba bët nga fudd jóg jant bi na dàng yow man ga man ga sopi dara yow man ga sopi dara Nah, ba ngay di xalangu di balax ndiku fekk na yàlla ngay séddale ay yëfam dama bagu yi ina tali ni do lu ma gënal sax nag Wae daf ma daan wax genn kàddu Nan ma dan ngay nappi pirak. yëfi nappi pirak du ko sotel. dan ga wara wax na ma ko ay yoon na ma duggloo na ma xalwa jaami yàlla yi dañ daan ñëw ci moom di ñaanlu mu orienté leen ne leen boole naa leen ak bàyyi nit ñëw na di ñaanlu mu duggloo ma xalwa soxlaay boppam ci boppam duggloo na ma ko xalwa ba may duggloo dafa ne ma ñaata ngay laaj ma ne ah lo ma jox rek mu ne ma demeewut noonu xalwa duñ ko duggee noonu wax ma li ngay laaj ma am lu tuuti lu ma tuju. mu ne ma baax na ci kër papa Cheikh gi ne Medina laa ko defee boobu ñu ngi ci digg problème yi jumaa yi Medina kër ma jabali waaye lépp lu ma ci yàlla wonoon yàlla woon na ko ko duñu xoote de ne ñëw leen déedéet duñ ko def ndax Cheikhu Tidiane Cheikh Mouhamadul Hafiz ba mu demee ci moom ba mu yar ko fa ne ko boo delloo neel tekk na dégg ku yàlla cëral dana ñëw jël si cër bi waaye bul xoo kenn waaye ba yàlla ubbi ay buntam gàdd gi yëpp dañoo dagg ñëw jariñu ci moom ba léegi nit ñaa ngi wéy di jariñu ci moom kon nañ liggéey te yàlla tax wax naa ne nag ak xilaafatu yaa daawuda inaa jaalnaka xalifatan fi l ardi yonent yàlla aadama yàlla daf na ko xalifa xalifa nag ak xaalif ak xalaf bokkut maa ne déjji toog fii kum neex ma toog kum naqadi ma toog kooku sa waxi bopp la waaye du wax yàlla xalifa nag yàlla koy def nit doxut ci am-am doxut ci man-man sama maa ngi yaa ngi nii benn àggu ci kon yàlla xoolul ci am-am ba tax mu sedd ñu li ñuy sedd yàlla xam na loolu doxut ci ay at ndax ba ma koy jox ba may déy boobu sama mag a ngi dund kon nit ñi dañu war a xàmmee ku bëgg jëriñu laa wax de yàlla xam na ne lu jëriñ nit a ngi fi wax naa ko ay ay yoonu bokkut ak ak bokk nag gis nga bàyyi ay bokkam ñoo mujj jëriñu ci moom ndax lañ doon xol bokut ak lañ wara xol bay bay rek mo dawon ñew nangusi si xote rek mu gaaw ne man may ki ñew pour bëgg xam bay kaddu bay gi di daanu rek la jóg te lolu ndey moko ko may bari dañu xamut lolu soxna khadija mi nga xamne soxna si maa lay ci su ndaw la won jégué ko lool soxna su ndaw ñaari fay xam lu soxna su mag dut xam ndax mu jog dundu ki ndaw rek lañuy taxot mu man di dimbalé kim nekkat maalaaji dafa oo wax ak moom ay kaddu maam yi jaw dégg ko mu mel ni baalaaji daf koy dénk boppam julli ga mujj julli moo ko ko jiite wax ak moom kaddu yoo xam ne maam yi ba mu ko déggee dafa yéemu ci yàlla moo taxoon ba yëf yi passé mu ne doomam sëriñ mbay xaw ma luy xew ëllëg de waaye lëf dana xew ci ci ci Ibrahima mii maanaam man la dama dégg muy wax ak bàyyam yàlla dénk na ko ay yëf waaye ngel la doom boo liggéey bu lu mën a lu mën a yëngatu rek na ne ci wetam boo ko defee doo doo perte loolaa tax bàyyi mbay teel a addu ba na ku bëgg a xam yàlla may xalifa du mu taxaw ci peggam ne ko man maay ki bëgg xam yàlla loolu moo ko sauvé loolu moo ko moo tax mu jariñu looloo tax mu nekk di ndeyi taalibe yi bàyyi nag nekk koo xam ne ku am kóllëre la boo ba bëri na ay doomi bàyyi ay ñaar lañ ci tuddee yu ma xam muy maam Khalifa ak Serigne Mbaye Niass la moo tax ba mu gaañoo mu wane ne lam jàppoon ci moom ba léegi mu ngi ko jàpp dara soppiwu ko ci benn bayti rek ci la tagg bay Mbaye wax manoore yam am wax taxawaay ba mu am ci moom ak toogaay bu njëkk bu mu ne ci peggam di ala rahimal ilaahu aqi wa xibbi aba bakrin fataya wa rasa saxbi bañ na ko gaayu na rek la jël xalimbaam jël kayitam bind na yàlla na yàlla yërëm sama mbokk mu baax sama soppe sama waxambaane bi nga xam ne liggéeyal na ma ba xëy mënatut Abubakar ndax arab yi bu ñu waxee alfata mooy waaja ki nga xam ne dafa nekk di ndaw loo xam ne mat naa tudd mate na ko ci jikko mate na ko ci xam-xam mate na ko ci teggiin ba mu paree nag mu mujjee ko li nga xam ne mooy li gën a am solo mooy war sa sax bi moo jiite mboolem saxaaba yi képp koo xam ne da ngaa aju ci bàyyi bay bay na ci sa kanam bu la neexee loolu la yàlla def bu la naqadee loolu la yàlla def ndax jëf ju ne dafay am njëg te ba muy taxaw di wax ne man maa bëgg a xam yàlla kenn ñemewut loolu ay magam a nga fa boobu ñëpp a ngi teew ndax gàmm la woon kon ku def lu rëy ñu jox la lu rëy li war a royee ci moom nag mooy nangu ak topp ak nappi ak yar ak teggiin ak fàtte sa bopp effacé wu carrément loolu moo baax ci taalibe day may bañoon na ko këram gi ci law na ci la daan toog waaye këram gi ci Medina daaw fa nangoo nekk ndax bañee dem ak sëriñ bi su ñëwee ba nuyoo rek dafay daaw dem ci këram gi ca lew na fa lay nekk fa la soxnaam nekk comme bésab ziyaara la nag te moo jiite taalibe yi nañ jumu ci moom yar ak teggin baax na ci nit lool ñu wax ne tey baax na ci nit baax na ci ndox waaye ci nit la gën a baax man de wér na ma ne am naa ndigal wér na ma ne ko ànd ak man doo doo des gannaaw waaw waaw. ganaar yi sax addu nañ wér na ma ne ku ma gërëm it dana feeñ ci yow waaye nag duñ téye ay ay tama mbaa ñuy mm, tëgg ay sabar di duñ def loolu ku yàlla na mal lu baax rek yow yaay kii ñëw ngir jël lu baax loolu jariñoo ko te nag kenn jaaru fi nag ñu bind jox la mbaa ñu tàllal ñaan la te jariñoo amut nak, amut de yalla mo def lolou nit bu toge ba wajuram di wax ne ñaanal na ñaanal yalla xamna ne dafa wara ñaan yebal na ma ci génn góor may baye ju roq ben wess dama fa yebal ma dem fa ne ko sama ma mo yoni fekk wax nak mom ba pare yu bari xewna fi de kenn xamuko an ma dem ba ma demee nuyu ko ngoon laa ko fekk ca war mu toog maa ngi nuyu ne ko man la bàyyi sama bàyyi ma yónnee ba ma joxee loxo rek xëcc ma dama toogal ci lal bi ma ne ko mukk bàyyi loolu du ma ko def maag moom maag moom maag moom ba man ba toog de ma toog mu am lu ma tudd ne ma jàng ma dégg mu wax ma ma wax mu waxaat ba wax mu ne ma jàpp nga ma ne ko jàpp naa ko mu jël kurus gi sànni ko ci suuf yëkkatiwaat ko téye ko am per bu mu tolloot mu ne ma del ñaan lo ñaan yalla da ko nang yalla xamna lool loolu ba pare ñu waxtan ci li tax goor gi ma fa yu yeb suma ko yox pour bëgg ñi nga xamne japp nañ ñu gëna japp te xamne jappuñ ci neen mm-hmm. jappuñ ci ay caaxaan la ñëwaloon mag ñi rek moy ñëwal la ñëwaloon mag ñi rek mooy ñëwal waxuñ ko nag ngir bàkku dañ ko wax ci buntab sant yàlla te léeg-léeg ay yëf mooy tax nit di àgg ci yenn yi waaye bu taxutoon ak yenn yi yenn yi duñ ci àgg waaw yenn yi nag su nekkee dafay baax léeg-léeg nga àgg ci yenn yi ndax yi nga xam ne dañoo bëgg jëriñu buñ déggee yenn yooyu mën a jariñu القران دفن واتبع السبيل من اناب الي كي جوغنا بريد جيم سي الله بو بغي جيم الله تخمو يون تي بريد جيم سي الله خمنا يون توبال سي غناوم رك باغي غاغ واي واخنا فنن ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر bu leen topp ci gannaaw koo xam ne dafa tëj ab xolam nanguwut mbaax dugg ca nanguwut leer ak yàlla dugg ca te duñu tudd mukk du duñu wéetal mukk duñu jaamu mukk kooku matul sëriñ waroo ne ci gannaawam boo nee ci gannaawam da ngay tardel sa bopp da ngay jeexal sa dund ci lu ko jarut te nit ki dafa war a profité ci ay segondam ak i minitam ak i waxtoom ak i bésam ndax lu ci wees rek dootu ñëwati lu wees ci sa bés bi rek du tujjawati te wax naa fii bi ñu firee alquran ne juróom-ñaar juróom-ñaar ci la yàlla bind doomu aadama booy toqantal ak mën ni juróom-ñaari fan yu nekk sa biir bi dafay soppeeku juróom-ñaari fan yu nekk dafay soppeeku ba ba doom di yëngatoo di soppeeku ba am ay yax di soppeeku ba muur der di soppeeku ba am wee ak ay bëñ walla ba am wee ak karaw di soppeeku ba mu bindam mat soo juddoo itam ci noonu lay wéy juróom-ñaari weer juróom-ñaari at yu nekk juróom-ñaari weer yu nekk danga nga soppeeku juróom-ñaari at yu nekk doomu aadama ji dafay soppeeku soo ko weddee rek fotul nga denc ko boo amee juróom-ñaari at nga xoolaat ko da gis coppaliku gu rëy ci sa jëmm ji kon yow yaa ngi dox yaa ngi ci sayru baatin boo xam ne yowoo ko sayru dafa am ci maana am ci madd sa jëmm ji di ci sayru la nekk yow boo tëddee nelaw it moom mi ngi ci sayru toppatoowut la ndax yow yaa ngi ci sa sayru baatin wala wala nekkoo ci sa sayru baatin moom mi ngi ci topp ndigalam li nga xam ne moom la ko yàlla bindee juróom-ñaari at yu nekk mu soppeeku léppi doomu aadama dafay soppeeku ba mu des yemar kii jëm kooku du soppeeku suuf du ko lekk ak juróom-ñaari at da ngaa war a dal jàng jurom ñaari at yo ci top war fende ko bu baax jurom ñaari at yo ci top muy ñaari fukki at ak ben war nga mën bëgg jigen jigen bëgg la yak jurom ñaari at bo àggee ci fanweeri at yang ci sa digg doole so ci sa ñeent fukki at ci la yalla di yoonu yónnantu yeb bobu sam xel ñorna na mat na sa taxawna danaka na sa xel ci ëlëk lay gëna not ci mbiti adina nga dugg nak ci sa li phase lo ci am baxna am na ñoo xam ne buñ ci amee fukki at muy juróom fukk ñu ju seen borom ñu ñaar fukki at ci lu yonent bi mënuy tegal ñett mu wuyu boromam moo tax mu ne amaaru ummati maa bay na si sittina la sabain su ko paasee nag yàlla toppatu la dara ku judd di dund ba làq juróom-ñaar fukki at soo jaamuwul yàlla it te fekk yaa ngi ko doon def yàlla toppatu la dara daf lay fay waaye duutu la topp nguur ak àddina rek boo demee retraite da ngay toog ñu lay fay ndax ñu ngi geesu lu baax la nga doon def ak sa coono ba nga joxe woon yàlla it loolu lay def ak jaamam yi kon nañ dëggal taalibe gi mooy baytul xasit bi mooy daaj bi mooy buum gi nañ dëggal taalibe gi dund bi dafa gàtt boo dundoon téeméeri at sax gàtt na ndax bés boo dee rek mu mel ni mosoo dund dara nañ jaamu yàlla te rafetal ko nañ hormal. képp ko yàlla xormaal nañ bëgg yàlla bu fees dellu suñu xol ndax yàlla mën caa fees yonent bi nee alayhi salaatu wasalaam yàlla nee na xajuma ci asamaani juróom-ñaar xajuma ci suufi juróom-ñaar waaye xaj naa ci xolob jaam bu gëm yàlla xolob jaam bu gëm yàlla du dara lu xol boo xam ne mi ngi tudd yàlla li yonent bi waxoon saxaaba bi salaam yu bu mu dañ di tudd yàlla ba mu tooy xepp ci baatab laa ilaaha illallah su boobaa nag leer mooy fees sa xol leer googu mooy jëmi yàlla ji lay mooy allahu nuuru samaawaati leer la du jëmb ju ñu xam ni ay tànk ki ay loxo daf koy wax ci alquran ndax ni ñi mën a dégg yaddu laay foo ko ay déhim waaye taxul yàlla am loxo bu muy tegee ci loxol kenn inna alladina yubaayiunaka innama yubaayiuna allaha yadullahi fawqa aydihim la alquran wax bi nee na yàlla yàlla nee na ko ñi nga xam ne dañoo ñëw tàllal la loxo di jaayante yow yaa yàlla yàlla la ñuy jaayante sa loxo bi moo représenté jëm yàlla ji ak yàlla bi waaye su boobaa duur jëmm ju ñuy gis di ko teg loxo waaye yonent bi mooy mazharul uluhiyati noonu la ko bàyyi tuddee moom moo feeñ di jëmm yàlla ji kon lu mu def rek yàlla ko def leer la nag goo xam ne bu tàbbee ci lox xolab jaam bi xol boobu moom laab na xol boobu yàlla xaj na ca ndax leer ak yàlla mooy moo moo mën a xaj ci xolab doomu kon buy wax naan danaa xaj ci xolob ku ma gëm mooy leer dana ne foofu te leer ko fa nekk rek leer ak yàlla la alquran moo ko firi allahu nuuru samawati wal ard yàlla mooy leer ak asamaani juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar gannaaw ziyaara moo ñu tax a jóg nag ñu ngi leen di nangul seen ziar waaye ñu ngi leen di fàttali li ñu boole mooy jaamu yàlla ak yéwénoo ak laabal suñu baatin ndax ku bëgg ànd ak mbooloo moo xam ne leer rek moo lay yóbbu ca kaw soo tilimee doo bokk ci ñuy dem mukk jaamu yàlla toog na naan diw amut ci yàlla ca kooku ba mu ko déggee def na ah, lu mën a xew de ñun dajee ba ñuy dajee ca kaw man de gisuma ko ca kooku moo àgg maa ngi gërëm ñi ànd ak man depuis bi sëriñ bi di dund te ci ndigal lañ ko def maa kaana lillaahi daama wa tasala wa maa li xayrihi in qataa wan fasala loo xam ne yàlla la yàlla dafay sax te dafay jolli dem ca kaw a kaw a kaw départ ba nag mën naa woyof mën naa tuuti mën naa néew mën naa gëmm waaye nag dafay gën di jolli rek di gën di yëkkatiku di gën di leer te dafay jokk ak pay ba itam bu len xol dara lu baklingin lu bax li ngeen bëgg ngeen teg ci seen bëtt te boole kook jaamu yàlla boole ko njub boole ko bëggante di dimbalante ngir yalla dañu and liggéey dafar nañ internet bi de ngeen léegi président bi mbay wax ko ay millions mo ci tabbi te laajuma kenn ben deureum daa ngi am ay talibé ñu ne fi di jàng may dimbalante ak seen wajur yi topp ma leen dara ku ne loo ci joxe rek yow sa coobare la am na ci benn benn yoo xam ne nag weer bu dee danañ dinañ di dara ne ma am nit ñu baax lañ ñoo xam ne dañuy dañ ciy boole sax di jënd saabu di indi yooyu yu am solo la ku koy def fokk mu dellu siwaat ci sa njaboot léegi rek jaaw yàlla wax na ko ne kenn defalul kenn dara ku am doom mu jàng del sonn ci sëriñ daara bi ba de len ko joxe man ca def ay sewam ndax lima ko koy jox kat man soxlam yep da fay dimbalante man ngir yalla rek te mi ngi li ci gono yi nak dara ji ay million lañ ci def bañ naa ko ba defuma ci sax fer bo xamne ci rew mi la nek fer local rek lañ ci def Malick mi mo amé won liggéey bi fer fer importer rek lañ ci def ndax lima bëgg moy dañuy jaayante ak yàlla ci dara ji motax fer yi may tabaxé sama kër gi tabaxé wu mako dara ji mu gën a cher foofu te ñu am professionnalité lañ ko joxoon ñu koy liggéey bëgg naa ku ne sa dërëm dem ci ndax denc la boo xam ne dafay nekk ba faw te boo tëddee ci sa bàmmeel dana la wittale boo dajeeg sa borom da nga gërëm mu gërëm ki lay xiir ci nga def ci lu baax kooku mooy kilo la bëggal lu baax te xew yi ku ko topp yaa ngi ci def ay junne yu bëree bëri doo ci jëlee dara ndax yëf yaa dina moo la ci dugal ngir yàlla taxul la ci dugg nañ góorgóorlu ci lépp loo xam ne dañ koy def di ko woote da ngeen xam ne ngir yàlla rek mooy ñu ci dugal képp koo xam ne yaa ngi gàddul cofeel nag xamal na ñu ngi la gàddulu ko raw te ñu ngi lay ñaanal yàlla itam. bañ xàmmee ko ba léegi am na jaame yàlla yoo xam ne dañoo ànd ak ñun ay góor lañ ay jigéen lañ seen cofeel yi. ma del ut nag lu ma dafa rek dama ca am ndigal del ut nag at mu nekk di ko rendi ma ne baax na. waxtu wuñ ko rendee falare rek moo ko moom mos ñoo togg falari ci kër gi dañ ko koy jox waaw mosuñ koo lekk heure buñ ko rendee dañ ko koy jox asa ngi as saaxu ngi ne moo ko daan yóbbu waaye waxtu woo xamee ne daf nañ ko buñ paree lañ ciy jëlee ñu jox ko bu paree ñaan yàlla loolu mooy melow taalibe da ngay def ba pare nappi rek te xam ne yàlla dana fayante yow daara jaa ngi noonu dégg ngeen bay wax ne bu dee karo yi bu ma soñoon ni ko noonu boobaag léegi fekk nañu karo ko ndax taalibe yi bëgguma ñuy am benn jafe-jafe dañoo nekkoon ci daara joo xam ne dafay am ay sax-sax léeg-léeg muy tabbi ci suñuy baaraam ñu koy dindi waaye maa ngi bëggal daara ji buñ gis loolu yëpp ñoom te yaakaar yàlla def na passé nañ ko sax ñoom gisuñ loolu waaye bëggoon naa ñu karo karo bu karo bu mucc ayib defar ko ba nga xam ne li ci des fi mu ne nii ci liggéey bi bëri na bariwul ñu leen ci ñu ngi koy saxañ ci seeni nopp yeen ñepp képp ko xamne man nga def ngir yalla nga def soy def nga jaareele ko ci président bi wala nga jaareele ko ci malik mi liggéey nañ ko ba pare lu ci nit def du ma téye xaalis Malick koy bayé moko yalla daayira bi ma ngi leen di gërëm ngir lu am tambali te mut, mottali ko way ma ngi gërëm taalibe yi fi ñew ñepp ndax ku fi ñew rek sa ciofel mo la indi bëgg-bëgg mo la indi xëtt nga lu bari ba tax nga ñew am na ñoo xam ne bëgg nañoo ñëw waaye am nañ lu leen tere tere yi ñëw ba léegi man am naa ci lu lu ma leer làmbatuwuma waaye ku nekk ak na sa pas-pas toll léeg-léeg nga gis nit ku bëgg ba pare am lu muy ragal bëgg ba pare am lu muy daw bëgg ba pare am lu mu bañ ñu xañ ko ko ba tax du man ndax yëm bëgg a def yooyu yëpp xam naa ko waaye jàpp mooy benn ma jàpp rek mooy xol yi laa lay jàpp man nag kenn du jëlee fi man wax joo xam ne dafay ñaaw ñu ne bàyyee ko wax wala muy jëfin wu ñaaw ñu ne bàyyee jëf loolu li wees amut te liy ñëw incha allah maa ngi yaan yàlla yàlla bu ma ko nattoo lu ma nit def ci lu bon itam bàyyi naa la ak sama borom bi ñu bokk yëlif ndax benn yàlla rek a am te bàyyi nee na jaam bi fu mu toll yàlla ak janoog moom boo xamee loolu yow waroo tontu sax bàyyi yàlla rek sëriñ bi mu fi amee jafe-jafe dafa biñ fi dajaloo naan dañuy def nangam ak nangam daf ne bu ngeen dafee dara ci li ngeen bëgg yàlla génn ci programme yi moom te bu yàlla génnee dara du baax. lu leen di naqadi yàllaa ko gën a xam moo leen ko gën a mën a faj nañ ko ko bàyyee man it loolu laay wax te man de am na lu ma ragal de li ma ragal de mooy ku ma tooñ du ma fayeeku de man kenn mësuma tooñ ma fayeeku waaye ragal naa ku ma tooñ. damay ragal dara fekk la ci loo xam ne man sax du ma gërëm duma gërëm loolu yàlla xam na loolu moo tax yenn yi boo ko xamee ci sa bopp sax da ngay daw ndax doo bëgg kenn loru waaye jaamam yàlla bi marchandise yàlla la te kenn du nanguñ marchandise am yàqu ko dañ bàyyi xel ci loolu jaamam yàlla bi marchandise yàlla la te marchandise ku ko am doo bëgg kenn yàqu ko bàyyi wax na ko sax ci ruuxul adab te so jógee jëm ci yalla ak ki jog bëgg yalla ñaar ñu ñoo mëna a shaykhu wal muridu al murabbi nak, goor mana nako doon ci goor ñi ak ci jigen ñi waye jigen mënu ko doon ci ay goor téere bay biñ ñu waru ruuxul adab ba firi itam la wax dama ne murabbi man na am ci jigen waye ci jigen ñi de ndax xalwatu dañ koy aaye góor ak jigéen gu duur sa xarmante ngeen wéet yéen ñaar kooku dañ ko aaye ci sharia te Cheikhu Tidiane dafa waxoon ne fa ma aataytukum bihi fa zinuhu bi misaani shar'i fa ma waafaqa fa xusuhu wa ma xaalafa fatrukuhu lépp lu ma leen wax na ngeen ko peese ci man xam sharia su àndee téye leen bu àndul bàyyi leen jigéen di tarbiya góor ngeen wéet ci néeg loolu dafa xaram ci sharia بمهارة ميتي شريعة لها رامي تي فايدة في حيرم تي طريقة تجان جيجين من دا أم أي تالي غور غور نك من نام أي تالي بي جيجين من نام أي تالي بي غور نخ باي دفن وطلب مربيا قبيرا ناسحا كاملا عرفان إماما صالحا ملكه نفسك فلا تدبر وكن كميت دواما تخبر واطلب مربيا قبيرا ناصحا كامل عرفان إماما صالحا جروم بن تومب موي داجي نيت كي دورا نيك شيخ المربي da ngay nekk murab bi mooy da ngay mën a yar ku yar du du dañuy wax ne ki lay jox loxo loxo bi nga xamne bu addu borom fay fon loxo bu ñuy fon borom du saga da ngay ne khabir moy da ngay xam naka la yéré da ngay ne khabir da ngay la bir lima waxon legi na turu yalla yi mag yi ngay xam dañ ci tasarruf yalla du ko jox ko xam da fay xex ak xulu di mat ak xusi yalla du ko jox ko mukk kaamila irfanin da ngay xam yalla xam gu wét mooy li abib doon wax legi Imaman salihan da ngay nak da ngay mat iliman te da ngay nak mbañu rus ku yiwe te bàyyi nee na salaaxu mooy daraja gi gëna reey de lay yonent yi mosuñoo ñoo passé salahu fo alquran daanu ne wu mina saalixiina mënu ko passé yonentu yépp daf dafa dugg ci buntu salihin imaman gogu nak bo ci taxawé nga dem ci lakhdari wala mursid mang lay wax ne shartul إمام ذكر مكلف آت بالأركان وحكما يعرف وغير ذي فسق ولحن واقتداء في جمعة حر مقيم عددا ndax jigéen mën naa jiite wetut moo tax mënta ne seexul murabbi ci ay góor te boo jiitee góor dana ne ci sa gannaaw jigéen dana ne ci sa gannaaw tomb bu njëkk nga da ngay nek mu këllëf gone gu mata gut man na jité na fi lay way min di jité farata ay tin bel arkaani ko xamné man ta sujud sujud bu rafet ta rukkoo rukkoo bu rafet man ta nek iliman sama ndigili bu ma da fay metti da nga wara a ne ci gannaaw way waroo ne ci kanam wa hukman julli gi yaqo nga man ko yang wa xeyru si fisqin te ne fasiq fasiq ak nafiq dañoo jege te du benn naafiq mooy kuy wax loo xam ne gëmu ca dara fasiq mooy kuy mooy yàlla te nëbbu ca dara wala xanin waxti daa du jàng alquran di ko yàq di ko damm ndax alquran baat bi waxtu soppeekoo dolli nga ci julli soppi nga maanaa te loolu dafay wàññi julli waxtidaa te doo roy ci kenn dañuy roy ci yow moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi dañuy werante ndax guddi altine dafa reñaane boromam ñëw jibril ñëw fajar di ko jàngal naka la ñuy jullee jël na ci yonent bi jël na ci yàlla julli waaye waxuñ ko ne ñu jullee ñu toog di xaar jibril ca tisbaar jële jibril door a ñëw julli tisbaar moo njëkki ci lislaam ba ñëwee liqaam ba mu ñëwee nodd na ko bu ñu waree julli dañuy nodd lii mooy nodd saaba yi wax nañ ne bis diw dafa dafa géwéntu ñu nodd mu ñu wax ko yonent bi mu ne na wax ca kaw ñu nodd waaye jibril moo ko jàngal loolu lépp ba mu ñëwee liqaam ne ko bu ñuy taxawal julli nii la ñuy def kabbar am ñaari rakka toog kabbaral am ñaari rakka toog sëlmal ne ko lii mooy julleeg tisbaar Takusan jot mu ñew nako ko fi may julli won ak fi moy julli moy waxtu julli ak mom takusan selmal té timis gi mu ñëwaat nako li moy takusan timis gi mu ñëw daf ñetti rak nako li moy timis maxtaram dafa gatt yéegi jot mu ñëw taxawaat ci kanamam té waxtu wu taxaw yonent bi diko xol sahaba yaangi ci gënaaw bi sallallahu alayhi wasallam. sallam ñi roy ci bi bi di roy ci jibril ñu ne royutoon ci jibril waye dafa doon deglu am ñangam taxawaayu jibril mooy jàngale yonent bi moom nag jekki mooy ilimaan kenn du ilimaan ci moom moo tax gayru muxtadin ilimaan du roy ci kenn kon nañ nekk ay jaami yàlla yu baax yu yiwe yu bëgg lu baax di moytu lu bon dañoo ne ci jamono bu jafe nag yàlla rek moo ko mën a nooyal jàppandal na ko yàlla na ko yàlla jàppandal yàlla na yàlla yombal dund ak koddaay yombal dëkkuwaay yombal warwaay may ñu jàmm ju sax ci suñu jëm ak suñu njaboot ak suñuy dëkkuwaay ak suñ dem ak suñu dikk yàlla yàlla yombal wërsëg te bëril ko te yaatal ko te saxal ko te lewal ko yaara bi yàlla nañu yàlla wattu wattu goo xam ne yàqutu ci tabiti yàlla yàlla baaxal jabar yi baaxal doom yi baaxal àndandoor yi baaxal soppe baaxal lépp loo xam ne bëgg nañ bu baax salaamaaleykum oustaz jëlal sa compété bi nga laajal sëriñ bi hadiya kilifa gu am nii ku koy am war koo mën a laajal hadiya jox ko ngir jëmmi Mawlana Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima Niass jóg leen ngeen laajal hadiya Baye Niass laaj leen hadiya Baye Niass jox ko ndaw Baye Niass yi bisimilah bisimilah ñu ngi gërëm bu baax di sant di ñaan yàlla na yàlla saxal jotaay yu mel nii 24 décembre bu ne ñu dajee fi fàttaliwante rek la ak dénkante ak bàyyiwante xel wax naa nag ne mosuma joxe lijaasa ki ma njëkk jox lijaasa Mali la dëkk weer wala passé dafa bàyyi ko Mali ñëw ci man tarbiyu bu ñëwee ma jox ko wirda jox ko tarbiya sama kër gi ci Medina fa la ne am na fa weer ba yàlla daf mu àgg ma wàccee ko ñaanal ko jox ko li ñu war a jox mu muqaddam jox ko li jaay sa ñaanal ko dellu na Mali tey rek oo na ma di ma ndokkeel ci ziyaara bi waaye léegi mu la bëgg mujjee jotaay bi gannaaw bu ma gërëmee daayira bi ma gërëm jigéen ñi gërëm ñëpp ñu teew di ñaan yàlla mu dolli leen mbaax di ñaan yàlla mu fay leen jëf ju rafet seen yéene bi ngeen am ba ziyaara si yàlla na yàlla daf ko muy ziyaada ci yéen ziyaada ci wàllu gu nekk nag ci alal ci wér ci bëgg-bëgg yu faju ci sutura ci lépp yàlla na ko yàlla def ak jaamu yàlla guñ nangu bëgg naa ñu jege ma fii ma jox leen lijaas yi gi may njëkk joxe ndax ñu bari dañ ko daan wax di ma ko di ma ko waxee waaye lijaas nit moo koy téye li ca gën mooy ba gis ku ko mate mën a ko am jox naa la ko léegi-léegi nit sàkku ko léegi-léegi nit ñëw ci yow ne la am maa la jox nangam loolu dal naa laaj Ibrahima radiyallahu anhu ñeent ñi ma tànn nag pour jox leen lijaas yi may njëkk a joxe ki ci jiitu mooy ki jiite taalibe yi fii ci xadara bi muy Alaaji Jimba Diouf sëriñ bi joxoon na ko ab lim waaye joxu ko woon lijaasa lim boobu ba mu jeexee daf ca war a tofal leneen danaa ko jox litlaax du ko dayalal ku ñëw rek bëgg tarbiyu na ko tarbiyu ku ñëw bëgg mu jox ko wirde na ko jox wirde may naa ko itam mu am fukki muqaddam képp koo xam ne óolu na mën na laa def ngay muqaddam ba mat fukki nit ba loolu weesoo euh, euh, Habib mi Habib mii itam maa ko jàngal fii ci kër gi te gis naa ko euh, rafetu naa xàlluwaam te la muy yëngatu naw naa ko mu ngi yëngatu ci wàllu diine wàllu tariqa bi te ndaw la ma bëgg ko jàppale ci loolu moom it jox naa ko lijaasa mën naa jox wirda képp ku ñëw di ko laaj képp ku bëgg a tarbiya mën naa jox it fukki muqaddam ki ma ci tofal mu ñetteel ko mooy Mouhamed Aboubacar mi ngi dëkk kër Abdou Jawe ci bokki tukulóor yi foofu nattu naa ko xam naa ko ñëw naa dénk ma boppam boole naa ko ci ñi may jox muqaddam di leen jox lijaasa lépp nag ngir góorgóorlu liggéeyal yàlla liggéeyal Cheikh Tidiane liggéeyal yonent bi liggéeyal Alaaji Ibrahima Niass ki may ñeenteel mooy Mansour Mbow mi nekkoon ci daara ji fi la yaroo sëriñ bi yar ko jotutu am ci moom lijaasa waaye gannaaw ñëw wuutu te lu nañ tax taxawaaye moom it danañ ko jox lijaasa muy ñeenti lijaasa yoo xam ne moom lay tàmbalee tey di ñaan yàlla mu dolleeku ci yéen dolleeku ci ñun ñaan yàlla lépp luñ ci bëgg ci lu baax yàlla yombal ko ci yéen yombal ko ci ñun <clears throat> ngeen liggéeyal Cheikh Tidiane ba mu gërëm liggéeyal El Hadj ba mu gërëm liggéeyal yonent bi ba mu gërëm liggéeyal yàlla ba mu gërëm yal na yàlla yombal loolu yéen ñëpp na ngeen teew ñëw ma jox leen ku ñu bokk ànd photo incha allah di ñaan yàlla liggéey yàlla def ci barke alhamdulilahi rabbil alamin